ah jërëjëf tey dañoo ñëwoon fii ci Médina pour profito ci 23 juin bi nga xamante ne peuple bi moo jógoon particulièrement la jeunesse pour dire non au tripatouillage de notre constitution cette fois si aussi dañoo jóg le 23 juin tey pour dire aujourd'hui que Covid bi nga xamante ne moo ngi suñu biir réew dañoo war a laxasaayu jóg taxaw bu baax mobiliser wu autour de la lutte contre cette pandémie autour de la lutte contre ce virus bu génnee suñu dëkk dëkk ba noppi ñu doog nag wax leneen parce que énergie yëpp comme ni ma ko waxee ci tubaab énergie yëpp la ñu war a boole. jeunesse bi yëpp la ñu war a boole ñu tegee fële politique bi pour que ñu xeex lii di nga xam ne mooy mbas mi damay féliciter nag autorités yi ma fi fekk parce que fekk naa ne ñoo ngi ci liggéey bu ama am solo les autorités sanitaires que je remercie parce que elles nous ont montré toute leur disponibilité les autorités politiques religieuses donc ñoom ñëpp en tout cas wane nañ seen féddale wane nañ seen ànd ak li nga xamante ne ñoo ngi koy def encore une fois ce n'est pas de la politique mais nous avons senti aujourd'hui la nécessité d'être à côté de la population dañoo taxaw temm pour que nekk côté population yi dañoo wàcc ci mbedd mi joxe li nga xamante ne mooy produit antiseptique au district sanitaire sud mais également wàcc ci mbedd mi pour joxe ay masques ñi nga xam ne takkuñu ay masques ñu jox leen ko pour que ñu inciter leen pour que ñu wax leen ne geste barrière yi tant que respecté wuñ ko feebar bi du du gaaw a génn suñu dëkk loolu moo tax tey ñu jóg choisir nag district sud bi nga xamante ne fii la nekk ci Médina parce que dem nañ fële ca district bu nord dem ca district bu ouest tey nag district sud lañ choisir pour ñu ñëw fii pour ne population bi ñoo ngi à à ses côtés ñu góorlu bu baax ci li nga xamante ne mooy mooy geste barrière yi góorgóorlu bu baax ci li nga xamante ne mooy xeexu mbas mi. waaw liñ fi indi mooy ay produits antiseptiques liñ fi indi mooy ay gants liñ fi indi mooy ay masques jagleel ko district sud ki nga xamante ne mooy médecin chef euh, monsieur Ndour. ma peggoog moom fii moom moo ko réceptionné pour ne ko ñun itam lii mooy suñu participation ci xeex mi lii mooy suñu participation justement ci ci ci effort de guerre yi nga xamante ne président de la république boobu ak léegi moo ngi koy def nee naa la sànq président euh, moom mooy euh, le le général moom moo tracé la voie donc ñun du ñu def lu dul topp ci li nga xamante ne voie boobu la tracé muy ñu nekk à côté des populations soutenir leen jàppale leen sensibiliser leen mais également ci li ñu yor ñu yëkkati jox leen ko comme ay produits antiseptiques yi ma fi wax sànq comme ay masques comme ay gants jagleel ko district sanitaire bu sud.